di am kontaante bu baax di kontaan ci initiative bu rafet bi nga xamni wa quartier Ansar ñoko def and ko ko délégué de quartier beeg notable yi nek ci ginaawum yépp di kontaan bu baaxa baaxa baaxa baax xana di ñaanal ki nga xamni ni mo am xalaat bi rek xalaat bu rafet bi and ko ko mbolom quartier Ansar rek defon nañ ko fi daaw jéeg dogal ren ñu defaat ko fi inshallah yalla nañ ko fi yag defé ñëpp di téwé di leen wax ni wa quartier bi yeb contane nañ jiital ko ci cadeau imam Ousmane eh, Sen ak ñi nga xamni bilal yi nga xamni ñoo top ci seen ginnaw yeb di leen wax dal contane nañ te contane mënu wessu contane nga xamni ni eh, jël eh, ndog rek jox ko julit ci yalla wax délégué de quartier am xalaat bobu ak ñuko ko ñep chaque année mu def ko ci quartier yi du fi rek day wër chaque année mu am ci quartier yi ñaanal suñu quartier bi yal nañ ci yàlla defal jàmm defal ñu fi sutura defal ñu fi booloo ah, ñu ngi gërëm waa quartier bi yëpp yëpp yëpp bàyyiwuñu góor bàyyiwuñu jigéen bàyyiwuñu mag bàyyiwuñu ndaw ndax lépp lu ñu gis lu jëm ci quartier bi rek ñoom dañuy ñëw def ci seen doole def ci seen xalaat def ci seen taxawaay nag ba mu mat sëkk sëkk sëkk sëkk di gërëm jigéen ñi nga xam ne ñoo nekkoon ci waañ yi ci suba ba léegi suñu délégué de quartier yàlla na ko fi yàlla bàyyi ak ñi mu àndal ñëpp ba li nga xam ne moom la sumb ci quartier bi yàlla na yàlla dooleel mu nekk ko yan boo xam ne nii nii yàlla na diis tamu attan ko ci barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. bii nag mooy troisième édition bi première édition bi fii ko defoon euh, deuxième édition bi def ko ci imam Abdou Aziz Fall jumaam troisième bi fii lañ ko indi nag euh, pour euh, def ko fi ndax it dafa am kilifa gu baax guñ ko seqaloon mooy Baye Ndiaye yàlla dafa ren mu woote ko ñu ngi ko ñaanal yàlla suñu borom bi yokk leeram taas ñu ci barkeem. ah ñu ñëw fii ci ñoom nag pour defee ko fi. pour gën a mën a nekk benn bokk ndey bokk baay ba nga xam ne yeneen nañ ko ci quartier bi ñu man ko def ndax euh, ay nit bu ñu seqee il faut ñu waxtaan te lii aussi day permettre kenn ku ne mën a xam quartier bi mën a xam aussi lan la ci war a def waaw mu xam ni du man rek maa ko mën a liggéey ah, du ndox bu dee menn man la rek du dox waaw su ko defee ñoom ñëpp jàpp ci ni ñu ko defee rek xam nga dañoo def ay kaamil ndax kaamil yi ñetti kaamil lañ wàccee waaw tëj ko fii nag bu ñu sañoo di yàlla quartier bi ah dinañ mën a euh, def ay loo xamante ne ay genre développement lay doon waaw ñu am ñu ciy waxtaanal nag waaw ñoo xamante ni donte groupement féminin yi dañ fa nekk jeunes di aussi fexe tamit ñu mën leen a dimbali ndax des fois ay concours wala ay yenn post liggéey euh, buñ ko gisee fenn mën leen ko présenter ñu ñu mën a dem waaw ah aussi fexe ba setal quartier bi waaw setal quartier bi nga xam ne quartier bi day set et puis ñëpp bokk ndey bokk baay